Tivaouane Peulh ci ay village mënuñu ko sax lim di ñëwaat rek di leen soññ yéen jeunesse bi di leen wax ngeen bañ a ñi nga xam ne nii tey mën leen jàpp ne askan Tivaouane Peulh seeni bëgg-bëgg taxul leen taxul ñuy voté pour nekk candidat mais li waral candidature bi yëpp ak la nekk seen ginnaaw ñun xam nañ ko te jàpp nañ ne intérêt personnel moo leen tax a jóg. seen intérêt personnel moo leen tax a jóg euh, mais jàpp nañ ne aussi monsieur mu fi jot a dund tey jii bu ñu ko jàppale waatee ba mu nekkaat maire de la commune de Tivaouane Peulh Niaga Niakoulal gëm nañ ne lu bëri dina parce que dina andi ñu bees ñoo xam ne nii tey ñu leen dégg si lenn luy wor wala di leen xamal ne ku ci mel ni Mamadou Ba ku ci mel ni Basirou Ka borom mouvement BAS ay doomu dëkk bi leen te jàpp ni duñu mës a nekk ci lépp dara lu ñàkk war a mën a dugal trop ba ci ay jiitu. donc bu ñu defee waaw du ma fàtte tamit ko Songoli ak euh, Boubacar Ka parce que tamit lépp tamit la ñun tey bu ñu amee fi taxaw woote conférence de gëm naa ne ñoom ñoo tax ak seen soutien di wax ni rek. monsieur le maire dafa ñëw ak slogan bu bees. dafa ñëw ak slogan bu bees mooy dafa fas yéene jël jeunesse boole leen ak suñuy mag boole leen ak suñuy kilifa ñu bokk boole. mérité dañu may ko seconde chance am. waaw waaw. suñu monsieur le maire li tax ñu fier ci moom mooy dégguñu ko ci dara lu ñàkk fayda bokkul ci maire yi jël ay suuf di ko jaay bokkul ci ay maire yi def ay prêt pour am mairie bi. te ku ne xam ne ne commune bi. suñuy du ñu fay tuuti ci wàllu pël amul entreprise bu war a mën a fay ay impôt loolu yëpp dafa jar a xel te xam ne lépp benn benn ci lay ci lañ ko mën a amee. di leen wax ne ne euh, monsieur le président de la république lu tax mu jëlaat monsieur Momar Sokhna Diop euh, jiitalaat ko ci liste Benno Bokk Yaakaar. ay jaaxaat c'est parce que dafa am ci moom confiance ci fullaam ci faydaam ci bëgg Tivaouane Peulh ñàkk moo waral tey ñu jiital ko ci liste euh, bokk na tey monsieur le président de la république am na ay projet tey yu rëy ci commune Tivaouane Peulh ñàkk Niacoulrab tey yàlla dogal na ni monsieur le la ci wóolu fin bi nar a am Lac Rose mu nek ben infrastructure bo xamné ni dina permettre jeunes yu bëri am liggéey Té loolu yaakaar naa ne euh bu nek loolu la war a ñaan muy développement Té projet boobu rek war na tax tay en tant que jeune ñu jàppale notre maire choisi par le président de la république Très bien. loolu mooy waral tey

ECSD fas yéene na incha allah te yéene nañ képp bëgg a ñëw jàppale bépp jeune boo xam ne développement tax na laa ñëw nga ñëw ànd ak ñun ñu liggéey pour que le soir du 23 janvier incha allah monsieur le maire Papis Diop jëlaat ndam ndam nañ ñu weer a teg te pour loolu ñun jeunes yi engagé wu leen yéene nañu jànkuwante lépp bu ma waxee lépp damay damay damay ëmb rek ne politique comme ni ñu waxee bëri na ay jafe-jafe yu nekk ci biir mais ñun pare nañ te déterminé wu ne incha allah rabbi ngir ànd ak monsieur le maire Papis Diop jàppale ko ba le vingt vingt trois allah mu jëlaat ndam jël bu kenn du weer